الله الرحمن الرحيم صدق الله القائل إنا لله وإنا إليه راجعون مبكي جلدي مبكي أمة إسلامية بي قد النبي ورق كاب جمو جوجو نجان جاكار لور فتوم دي برام قام قام دي مجاهد الأكبر نك العالم العلامة nekk al cheikhul murabbi di suñu bàyyi di suñu sëriñ di suñu soppe di suñu xarit bàyyi mursid ahmad iyan caam mu ñëpp xamoon ci taxawaayam ci diine ji ci réew mi ci benn lëkkëri diine yi ci weer wi moo wuy ji boromam sànq yi ci suba incha allah ñu ngi ko yëgal umma islaamiya bi yépp ci kàddu yuñ jotit danañ ko taxawee ci taxawaay bu njëkk ci jumaa yi jëppal incha allah ci waxtu trois heures ñu fas yéene nag yóbbu ko fuuta ca Tayba te dëkk boobu nga xam ne xolam ak xilaatam lépp ma nga fa woon loolu mooy information yi nga xam ne moom lañ jotagum li ci soppeeku rek ci waxtu wa ak yóbbu ga incha allah danañ ci dellusiwaat وعلى كل حال المرشد شيخ أحمد عيان شامي يبخم يخون تاكسي مولانا الخليفة الحاج محمد شئيران بنيخبا لب مجلون كو جويل كو جوخ مام خليفة نيخ وعي جوخ الإسلام دي جوخ كو بوليم كري ديني موهوي جبرمام نفال كو فاتيا أك فكي قلوة بينا أك يوم وأك نتي صلاة الفاتحة ديال كوكو ci waxtu wi tedd bi ñu nekk ci bisab àjjuma tolloog ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci mois de janvier deux mille kon xibaar baa ngi